salaamaaleykum salaamaaleykum Sénégal maa ngi di saal baax di leen bëggee di leen jaajëfoo gis ngeen man sax yéen ma ma yoon nekkul si yéen yéen waa APR moo yoon nekkul si yéen mais dama leen sobi rek dama leen dimbali rek dama leen a dimbali rek pour ngeen yéen surtout yéen ñi nga xamante ne dof bi da leen tudd Fouta Tampi daa tudd seen tur ah naan diw Abdoulaye Diouf Sarr Abdoulaye Dada jàll amadu Ba ba si Thérèse xaw ma fay ay la bëgg ay koppar la bëgg. ay koppar la bëgg xamul gat si APR du fa tus représenté wu fa dara lu dul nit ñi di ko utiliser rek ka bëgg saaga yox jox ko mu saaga ñaan yi ngaa ñaan nee na fàng si Facebook bi donc ay xuuxal la rek gat xama ko si APR yéen ñii mu tudd nag moo yéen nekku si yéen de yéen moom moo yéen nekku si yéen mais damay ne dimbali rek balañ ko jox 100 francs li ma xamu si gat dégg ngeen balañ ko jox 100 francs waaw ba ko jox dërëm mu naan <laughs> Thérèse Faye maa ngay ñëw si yow <laughs>